di sant samay ñaari waajur di sant ñi ma àndal ñeent. booy fay. moo jaajal taala yow laa ah. waaw ginnaaw ma sant yàlla julli bi ñaanal sama papa fee mu tëdd Cambérène yàlla suuf xoyof ci kawam ndax lu bëri rasulullah bi yëpp sama mbokk laay ni xam nga ñëpp maa leen di di ñaan yàlla Balla Gaye 2 combat xam ne moom la jublu yàlla may ndam at man waaw asalaamaaleykum gannaaw mu sant yàlla di lu si yonent bi maa ngi ñaanal suma papa yàlla may ko wér ñaanal suma yaay yàlla may ko wér ñaanal suma mbokk xam nga sumay famille waaw boo war a xam waaw jago di gërëm ñi may àndal la xam su mel ni ensemble ma ngi gërëm bu baax jàmm laay xam moom ko di gërëm di gërëm yokk yëpp di jël nuyoo di ko teg si loxo ma jaar ak gin xam nga di gërëm sumay staff bu baax ku mel ni Assane Ndao xam Pape Ngom El Hadj Boama xam di gërëm Ibn xam waa Yoff yu maa ngi leen di gërëm seen wàllu combat bi di leen wax combat bi yooyu nu ma sa bëree ku ma jégalu ci kàddu gi incha allah. Père Malick ñoom ñaar ku ci nekk maanaam liñ naan maanaam combat bi.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 xale mooy bëri déggal mu ni mooy xale déggal mu ni mooy xale waaw yàlla baax na nekk xale yàlla na yàlla may ndam loolu laay mag bu moo tax maa ko mag expérience comme maa mag bàyyi ma naq daal bu nekkoon xel mooy bëre benn Tapha Gueye du bàyyi bëre Tapha Gueye du moo ci làmb ji làmb boo amul doole moo zéro yaa may dégg dama la dama la mbër su ma la jàppee dama lay daan bu neexee yàlla ak yonent bi insha allah dama lay daan mbër dama lay daan amul Youssou Ndour Youssou Ndour doon mbéygee fay laa yemale dama lay daan dama la Youssou Ndour doon mbéygee fay yow bu doon fexe combat bi ay combat final la lan moo ko def final. mais combat bi ku sama papa la sama lépp la maa ngi lay sant di nga gërëm. yaa may dégg man maa ngi wut ma maa ngi bëri te Lamine xëy na waxu làmb la am na yoo ne jarul ok yee waaw yee. xam nga xam nga lu ma a neex. ñu la combat nga daw xam dem waaj waaj ba yaakaar ni baax la nga jël combat mais ñun yoo gën dëgg de loolu daal la ñuy def ñu xam la moo ñuy daal. Lamine nee na dala nax ba nga jël combat bi. Lamine la moo ñuy daal Lamine Golo loolu laay tuub la waaj na ba baax jël combat bi ah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 kii ñëw ma pour bëree moom. kii du ma bëree moom dama koy duma. man nangul naa ko naanaa na sama naanaa.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 Alioune Sall sama papa Ahmed Aïdara papa Mama Fall bu ma ko fàtte Kéba Kande yaa ngi dégg àndaw géewaay bépp képp koo xam daf may jàppale rek ñi nga xam ne dañuy sonn si man bu leen mën waa koñ waa Sène Baraak géewaay Pikine Parcelles fépp boo xam ne dañuy bëgg Youssou Ndour rek maa leen sant di leen gërëm dina ko nañ doole ñaan yi ba doon suuf taw maa ngi koy nuyu taw combat bi sa combat la. open press si kañ la. waaw sama open press bu combat bi jege see rek incha allah rabbi waaw. waaw damay woo waa yow bu baax di woo waa yow bu baax suñu waa Ngor ak suñu papa booy ñaan kii aw ma fayal waaw sama papa la aw ma fayal. waaw di woo waa Mboro bu baax di nuyu waa Kër Saalum Saalum Saalum Dembaay Albert di nuyu waa Ndiol di nuyu Bamba di nuyu suma taw suñu taw ak suñu laay nekk man de nuyu bu baax a baax a baax di nuyu suma waa fan yëpp. mu ngi lay nit rek. waaw lii yëpp lii amul benn njëriñ. mu lii daanu ma de. lii mënoo ko nag. amul lu may daan bëri wu wóor mais lii daanu ma bari sëñ Ba lii ay bëggee la rek. lamb yaa amul ko ne mën a bëre nga xam ni ngay def bu baax mën a ci lamb mais pas lii. di woo di woo suma mbokk. waaw yarul nga noppi sànq dañ la may nga wax yarul nga noppi. dañ la may nga wax yarul nga noppi. nee na bul calculer. ay noppi. man kii billaay foogoon naa bu yarul. foogoon naa bu yarul. billaay walaay. mais man tamit nekkul ba kii bee ko laaj bés bee ko laaj. loo yor rek maa la gaaw damel la damel la damel la yow doo doo pousse doo passe. loo yor rek maa la gaaw damel la doo pousse doo passe. lay woo sama sama mbokk di woo sama ministre bi Abdoulaye Diouf Sarr di woo PDG Moustapha Sall ndaw woo benn benn mooy yëpp di yoo sama pulaar Amadou Zakaria maa ngi nuyu ñëpp ñëpp